information depuis lundi da gis ay promoteurs yu ñëw ci benn euh, cette fois-ci sax demandé gendarmes mais dañuy ñëw uniquement pour lewal wala daganal wala continuer di napp ak di intimider suuf suñu jotoon a sàcc pour ko euh, pour bu gouvernement bu bi wala ñu bu ñu duñ ci ci xel duñ ci ndax ni

mais xoolal digënté démb yaa ngi wax euh, fi côté Bambilor gii. Uh-huh. Euh, tey jii yaa ngi wax beneen diiwaan c'est-à-dire chaque jour ak ñi jooytu di jàkkaarloog et promoteur yi ñëw di leen noggatu ak di leen jaay doole. légui promoteur bobu ben Mansour Diop bu ñëw mom fan la mëna jëlé jëlee mom fan la xëyal wa Sénégal ba ñu wax ko jox lu ëpp 5 hectares ba 7 hectares. Uh-huh. fan la xëyal wa Sénégal fan yow waji ñu naan moom société bii ñu jox euh, ancienne piste bi moom fan la xëyal waa Sénégal. Uh-huh. man mën naa jékki-jékki am benn takkateen ndomba tànk rek parce que euh, xam naa Macky Sall Bassirou Diomaye sama doomu bàjjen la damay dem ba li mi mu xool fa benn cent hectares suuf ni leen fi maa ko moom ay toolu béykat a ngoon ci biir ay village a ngoon ci biir yeneen ak yeneen mais loolu loolu boo ko defalee golo sax mu nekk milliardaire loolu moo mënta tegu fenn ñu koy bàyyi muy continuer moo tax ma ne askan wi dañu am résistance instant bi du instant bu ben promoteur ben vautour suuf di rawale suuf. Mhm. nañu am fulla def leen face autorité territoriale aussi faut ñu arrêté de agir comme non recevoir promoteur bi jóge fa joxé ay ordre mo xam commandant wala commissaire ñu envoyé ay éléments ñu wacc sur le terrain parce que sénégalais bi du tenir tête homme de tenue bi ñu ñew gazé leen japp ci ñom ñett yobul leen kanamu tribunal procureur bi top leen juge bi àtte leen ñu daal leen ñetti weer mo moo war nit kuy manifeste ni sama bi du ko dagg yow attekat bi wala bi di procureur demande, commandant mu def enquête sur le terrain convoquer les deux parties ñu wax lan moo du mais promoteur aussi wax nan la daf ko conseil municipal am délibération aw préfet am ñu approuvé ko d'accord mais commune ba lata mairie ba di ñëw dafa dafa fekkoon nit ñi nek fa ak ay toll est-ce que def nañ concertation ak wa toll ba parce que même mairie bi ci bopam bu bëggee def ay lotissement ndax ay demande yu doomi dëkk ba demande am ay way mmh. mais mairie bi bu bëggee def lotissement ci toolu kenn dañuy waxtaan jël dossier yu bu ko conseil municipal mairie bi jël ci pourcentage ki mom toll bi jël pourcentage am bu ñu noppee ci demande doomi dëkk ba ci la mairie bi di jox wa dëkk ba ci ci borom tool bi li mu séddu moom bu amé ñetti parcelle bu la jaayee yow xalifa mhm. maire bi ni mu ciy amaate mooy yow xalifa yow mi jaay da ngay def mutation mutation bi ngay mité pour jël ce kur sa tur def ko ci acte administratif bi wane ni jaay nañ le kër mhm. ci le maire bi amé xaalis nga gis ay maire yo xamni tay depuis nguuru Macky Sall gii dañu ñëw fekk mutation doon coûter 25000 francs ñu jël ko 25000 yobbu ko 200000 ay commune yu bëri Mbaye Moussa noonu la ñuy def mutation yow yow ci dëkk bi nga dëkk man ci dëkk bi laa dëkk nga jaay ma kër nga nga xam ne ngay dem mairie donc ñu changer la non. Mm-hmm. ak yi mo nga àndal yëpp quoi acte de vente beeg ak cessation beeg témoins yi ak yëpp ànd mu nekk benn dossier mais loolu bàyyi cinquante mille doy na ci. Mm-hmm. mais da ko yóbbu mais am nañu am nañu passé les deux cent mille. Mm-hmm. communes yi finalement nekk ci benn concurrence boo xam pour def mutation. Euh, ku nekk da nga naan man damay yokk mais yooyu yooyu nga xam moom la ñu bëgg a dunde tey il faut nit ñi am résistance jàkkaarloo ak seen ay commune jàkkaarloo ak soi-disant promoteurs yi mel ni ay vautours boo bëggee xaalis da nga koy wuti boo taxawalee benn agence immobilière légalement euh, di liggéey di jënd suuf di jaay di jënd kër di jaay légalement di nga ko awale ci procédure boo xam ni doo tooñ kenn c'est que mairie bi nga xam ni moo yilif dëkk bi wutal la ay kayit moom buy jël toolu baykat bi dañuy séddoo mhm. sàkkaay yow mi nga xam ne simple promoteur dong nga ñëw di indi ay soi-disant décret du benn décret yéen a ngeen foog la yomb a signé saa nga bu ñëw ni dañu maa jox temps de suuf décret la mais décret noonu la yomb a signé yéen a ngeen foog ni président day toog pare daal yóbbu yóbbu bigam mhm. bu ko kanam Moussa Thiam bu ko kanam Moussa Thiam neexee mënu ko demal àllub kaañ nga xool fa cinq hectares. nga natt ko décret baa ngi nii yéen daal da décret noonu la promoteurs yi ay décret la ñu indi président même bu amee sañ-sañ parce que président ne lan lay représenté ba est-ce que Moussa Thiam da koy neex rek mu bindal ko décret Moussa Thiam dem di ak ñeneen ci population bi la en même temps nañu wane kayit yow nga foog ni ki jële mécanicien

xëy na bañ nit ñi ñëwaat waa mais moom mi daaneel ba noppi kay li ñu doon bañ kay ak li fa nekk nii mooy yées. ay bidonville fa ay mécanicien di xëy mu salte ak ñu daaneel la fa nekk lépp ba ko fa lu gën a salte lii fi ne lii fi ne tey jaan yaa nga fa yalt yaa nga fa jiit yaa nga fa agresseur yaa nga fa prostitution baa nga fa parce que dañu daaneel te lépp noppiwul def ay ñugu-ñugu ba tey nit ñaa nga fay fanaanaa mhm. man xaw ma gendarme yaa ngi leen di gis wala déet ay nit ñu fa et li ci gën a graaw Nous intimider population bi. yow mi nga xam nga dëkk ci benn kër bu nekk ci wetu ancienne piste da balcon taxaw di xool li ñuy ñun la par la force. dañ lay xañ sax liberté sa kaw balcon air pur. léegi ana waa ana ana nous ne xuma fan la après décret na la de na grawa et tant d'autres joxe wax naa ko fi ñett yoon xaw ñent yoon bo jëlé jëlé autoroute à péage bi di dem di dem Touba balaa ngay egg Thiès ci carrière bi ci montagne bi. Ah. à droite foofu la toolu kireen bi ñu doon baye haricot nek ay centaine d'hectares ay nit yu bari doon fa daan doole ben nit ñi fi jëkk dem ñi fa jëkk dem intimider leen Farba Ngom ci la bok ne leen fii dañ koy jël Farba Ngom ci la bok hmm. man dama fa dem def reportage dama dem séq waxtaan ak liggéey liggéeykat ya fa nekkoon nekkul ni ñi moom tool bi ñoo opposé wu sax ndax nañ ko mais les ya fa nekkoon ci seen bopp ñoo jàpp ni fii ñuy liggéey waruñu kenn. nga ñëw fa di leen jaay doole mais loo ci gis fexe nañu ba xaaj tool ba jël nañ fa presque quatre hectares lépp ñu dagg ko ay yow passé Toglu Toglu. Mhm. ba bi egg euh, Toglu ba il Moussa foo jaar espace vide même si on ko bàyyee mais il nañ ko c'est-à-dire que pour am ci mais ko sax exploité kenn inhabitable la kenn dëkku fa yooyu ñu de ko bàyyi continuer normal je pense président le président Faye mhm. parce que soi-disant promoteur triant yi ci boo bëggee liggéey da ngay dem liggéey légalement mais doo ñëw di intimider ay nit di leen napp waaw autorité ak territoriale yi aussi am nañ ci part de responsabilité. voilà Khalifa. Euh, El Hadj ndax loolu wax du wane feebar bi ñuy wax ci suñu système administration bi ndax kuy ñëw.